kon nu ñëw ci xeex bi diggante Iblis ak Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu ci dundu sëriñ bi dañuy njëkk leeral ginnaaw leeral nañ kan mooy Iblis suñ moom duñ duñu sonn ci di leen ko leeral leeralaat ndax xam ngeen ko mooy suñu sëriñ bu baax bii rek Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu am na tënk bu mu gàtt bu mu def boo xam ne dafa wax ne dafa leeral maraaxil yi ak dundam ñu ci majmuwa bi dafa wax ne ca Assassin mooy 1301 ci hijriya 1884 gana lay tolloon ci la ko yàlla ilham mu aju ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam direct boobee la ko tàmbali nekk ci di ko liggéeyal di ko liggéeyal ba ci ay sasin mooy 1311 tolloog 1893 wala 94 ca jëy sasin nag mooy ci la tambali di jihad ak shaytané bu wër di xex ak shaytané bu wër ak yi shaytané ngem moy bakka nak aduna ak banex lol ma ngi ko tàmbaloon ca jey sasin 1313 1895 moy bimu démé ci géej gi rek ba ci 1330 di 1912 moy bimu ñëwé ñëwee mu wax nak né bimu ñëwé ñëwee nak ci la daane noon boobu nag jeexlu ci moom tak ba moom waa ji mënatul ci moom dar kon xeex bi dañuy daal di gis ni mu demee dëgg-dëgg suñ tubaab mooy koo xam ni diirub ak dundam seytaane musu koo digal lu mu def musta am ci mom yoon yàlla rek la dëppool ci jamono jëne loolu la cheikh mouhamadou bachir waxe balaa yi ko masa dal yépp musiba yi tegu ci kawam yépp seytaane la ko jiñ moom daa teel xam noonu xam nga nun jamono ji ñu bare bari bari na yuy xew yoo xam ne seytaane moo nekk ci ginnaawam waaye nun yeneen yeneen la la ñuy xool moo tax thème bi am solo lool lool lool lool ci waxtaane ko Sëñ Tuubaa ci jamonoom mooy ki jëmmal leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki ko doon te loolu am nay firnde yu baree bari wax na ko ba tey bushirtu anna rasulallahi qaddamani rasul day damaa jiital alayhi salaatu wasalaam قدمني في البر والبحر مع مدح الذي برا وبحرا جمعا لجلنا رسول الله تي تاغوكو بوم موج موجيتال ما نك ما نك تي كانام جيل بن كي لولي تي مج مجموع بو سيغ مور بند بي امنا فوم تي واخي ني لتر بو غودو واي دا تي واخ ني مبولم نيت يالا يي كو تي نيواتون تي جامونو سما غيناو لاي اج واعطاني الله بابه ولا يمر بالباب الا بمشيئته suñ borom dama jiital ci kanam ñépp jox ma buntu su buntam ba nga xam ne kenn du ci jaar te ja te te dama neex ku ma doo doo dem fen da koy neex rek radiyallahu anhu wa arda loolu wax na ko ci biir xasida yi qaddamani llahu ala alxuddaami am na firna yu bari bari qidamu man qidamuhu qaddamani fi lxaali walmaali abqa ah, amani امني بوك ني دما ينقاد للجود من الموجود قدمه قدمني بالجود لول واخنا سي لو بري با تقديم خالق الورى ذي الوحده قدمني كون شيطان مو جمل اك لندم دي يامار لو كو في نيكال سون بورون تبارك وتعالى لول مو اندي مو جمالو سيرن بو ماغبي ناخ سيرن ماغ تي جامونو جوجو موي كي جمال ليرو سون بوروم دون يونس تبارك الله عليه الصلاه تي ظاهر اك تي باطن دي ديمبلي جامي ak di fexe lu len bolé suñu borom tabaraka taala ak fexe lu len musal ci seytaane iblis yi di bëgg leena dewlo lol mo len bolé légui nak, iblis dafa am ay ngannaay bopam yu mi jëfëndiko sey señ tuba itam ami ngànnaay dama njëkk wax ngannaay iblis do ko ñëw ci ngànnaay sëñ tubaa jëfëndiko ngannaay iblis nag bari na man lima ci dajalé ni mat na ñaari téméri ngannaay ak nangam yo xamni bu ci ne iblis da ko jëfëndiko lima ci indi fi mat na yakana juroom benn fuk yoo dama koy wax bu gaaw te bañ a tekki bu ma tekkee xam nga du dem ci alxuraan li ci rot ci alxuraan la ci jiitu mooy waswasa waswasa da ko jëfandikoo ngànnaay la mooy jax-jaxal la ci sa xel fa waswasa foo seytaan fa waswasa ilayhi seytaan wa yudhibu ankum rijsa seytaan rijsa seytaan borom xam mi waswasa lañ koy dañ koy tekkee imdaad da koy jëfandikoo mooy tëbb la wa ixwanuhum yamudduunahum fi lxay day jëfandikoo ngànnaayul ixtinaak mooy la axtanikanna durriyatahu illa qalilan loolu mooy faagagal la wala dëkke la am na borom xam yu ko féré noonu day jëfandikoo ngànnaayul tasyin mooy rafetalal la mbir ba nga jàpp ne lii rek a baax fekk loola mooy la yàlla bañ la uzayinanna lahum fi lardi fa zayyana lahum sheytaanu amalahum wala uxwiyannahum ixwaa itam beneen ngànnaay la mooy bew loola ak xiirtal la ci lu bon ولا أهوينهم أجمعين صد بتي غنال إبليس لا تموي دد لولا لباخ وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ديغل لا يتم نلا ويدل بو باخا با امنا نيوم ني ويد يالا دون سي ام بن سنتيمان غا خامني موم داي ديو دنج كو ييغال صاح سين يارام نا يالا امنا دون يم سي لولو داني بيغ نا ييب صاح فيك سي لن سي لولو لولو غانا ابليس لا اذ قال كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك فوق لي مجي جوم تسويب اك املاء يوجد اي غنايم لا ما ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم دالاي فيت دي لا سا اي مبر ان لي سون بروم واخ يتام نصب وعذاب ان مسني الشيطان بنصب وعذاب اي غنايم لا nus bu mooy lor adab mooy am mbugal maanaa dugal ci taxtar yoo xam ne dalay jural nga wedd yàlla masalan at taxabut bil mas nga nayam la الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه يتخبطه الشيطان من المس الاستهواء الذي استهوته كالذي استهوته الشياطين في الارض التغرير وغركم بالله الغرور التخويف انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه موي تيتال الاستفزاز واستفزز من استطعت منهم بصوتك الجلب واجلب عليهم بخيلك ورجلك اك المشاركه وشاركهم في الاموال والاولاد اك الوعد موي ديغلا لو خامني داغا تي ام ياكار تا فك دار بوك تاغ لا يالا بوك واعدهم وما يعدهم شيئا الا غرور من يوم القيامه دا لن واخني ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم wa ma kaana li aleykum min sultaan man dama leen a dig rek wax leen samay wax ngeen gëm ko def man sama yoon ne ko ci seen mbir laa leen <laughs> fala talumuni walumu anfusakum al ihaa bil jadali wa zuxrufil qawl dagga sante ak wax ju ñaaw seytaane bokk moom bokk na ci ngànnaay yi nga xam ne da koy sadoom aadam moo di ko def wa inna shayatina la yuxuuna ila awliyaihim li yujaadilukum waaw يونتي مسنا وخ سيدنا ابو ذر نكو هل تعوذ من شر شياطين الجن والانس نخ ياغي مسلو ايو سيطان جن اي اك نيت ني سيدنا ابو ذر نكو يا نبي الله وهل للانس شياطين سيطان جن ري خمنا نكو واي نيت ني نخ نيوم اي سيطان مونكو واو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول ها غرورا سيطان جن ني نوي سا سيطان نيت ني wax ju bon ak ju ñaaw ak lo xam lépp caaxaan la ar ruya ci nga nayam la moy innahu yarakum huwa wa qabiruhu min haythu la taraw nga nay li gën a sax moy lool moy dalaa mën a gis te yow doo ko gis motax mu man ci yow dara al izlal fa azallahuma shaytan al hamzu wal hudur a'udhu a'udhu bika min ash-shayatin wa bika أعوذ an yahdurun al idla وأعوذ بك bi ghurur al idlal bil amani wal awamir al kadhiba loolu ci ngànnaayam la mooy la udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna aadan lana wala amurannahum fala yugayirunna xalqallah wa man yattaxid cheytaana waliya min dunillahi faqad xasira xusraana mubina mooy danaa leen réeral ni ma ko defee mooy ay mébét laay laay jal ci seen kaw rek ak ay ay ay ay ay maanaam amaani ay mébét yoo xam ni du dakk bi seet moo leen ni ëllëg moom mooy dàq réew mi kay moom pétrole feeñ na fi incha allah yéen ñëpp ay milliardaire ngeen doon fekk da bala moom doo ko fekkee bu soobee al xutuwaat ci nganaayam la mooy la tattabiu xutuwaat cheytaan al iqaa ci nganaayam la bokk mooy innama yuridu cheytaan yuridu cheytaan an yuqia baynakum al adawatu wal bagda al tilaawa wa tabaau ma tatlu chayatin al qiraanu wa soxba mooy ñëw lëkkaloo yow boole laak benn cheytaan ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم آه، ما بين ايديهم وما خلفهم التبذير تيغانا شيطان لي بوك لا بوك ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لبوك. الالقاء تي لا بوك القى الشيطان في امنيته ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض ولا النزغ تيغانا يم لا بوك واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله القسم الكاذب موي غين غين لو خامني دارو دو تي وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين الافتان يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابوكم من الجنه الهدايه سيدان داي غين موم لا بوروم واخ كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه والى عذاب السعير موم دالاي غيندي واي فم لا جيمي مو سوار رك الانسان وما انسانيه الا شيطان fàtte lola lu bax ak def ju bax ja waron def tasdiqu dhanni wa laqad saddaqa alayhim iblisu dhanna yaakaar naa boo ñu taxawal ko dima gudna gudd naa ak jurom te dessel na lu ëpp fanweer ak nangam yima limon hein li moy nga nay iw al wilaya an najwa hein ak mu ak tanazzul ak adawa bu de ci sunna yonte bi yonte bi inna ci lu bare bare tashkik yonte bi da wax ne ci nga nay sun iblis la bok te moy li Seydina ibnu Abdullah ibnu Omar nett li ne dañoo mas a nekk ci yonente bi waa ju ñaaw te ñàng lool yor yére yu kenn mënta gis moo dugg si xeeñ lool nag bi mu dugg see ñëw ba ci rasulullah sallallahu alayhi mu toog ci kanamam ne ko man xalaqaka man xalaqaka ku la bind yow rasulullah sallallahu alayhi bi ne ko allah mu ne ko fa man xalaqa sama asamaan si ku ko bind yonente bi ne ko allah mu ne ko fa man arda suf si nii ku yonte bi allah mu ko allah <laughs> yonte bi ne subhanallah wax ko Yun ñaar yon subhanallah Dari japp ci xar kanam bu sel ba alayhi salatu wasalam da waaje ne juk ne juk iblis ne ana eh, sayidna muhammad jekke ne ana waa don laaj ñu ne ko dem na bu yag kenn gisu iblis iblis mu bon momi ja ayu shakikum fi dinikum dafa ñëwoon di len sik sakalu ci seen kon sik sak ci waxi ci sun borom ak falsafa nangam nangam yi ngeen gis ci aduna bi fi ne ni ci ci iblis la bayiko amul sik la rew amul sik la rew ñi tudd ay scientifique ñuy wax yo xamni ni ak de sik sakalu nit ñi ñepp iblis leen ngeen ngem amul sik am na beneen ngànnaay loo xam ne rasul lay moo ko am mooy aljaryu inna seytaana yajri min ibni aadama majra dami mooy mën a dox ci sa ni sa deret di dox ci kii mu ànd ak di dox ci sa biir yunte bi wax na nga ne li ñuy wax ak ijtiyaal ak ixtiyaal yunte bi wax na ko mooy inni xalaqtu ibadi xunafa wa innahum atatuhum shayatin fajtaalatuhum an diinihim suñu borom da wax ne sama mbindeef yi dama leen a bind ñu sell lool iblis nag moo ñëw yàq leen ci sababu ittiyal ak ihtiyal yonte bi ba muy rañaan gis na euh ak lëndëm da melne ci hadithu ba hadithu imam ahmad bo xam dafa laaj jibril ne ko li lum don ak ñi ñum don mu ne ko hawla shayatin yahrifuna ala ayuni bani adama an la yatafakkaru fi malakuti samawati wal ard walawla dhalika dalika la al ajaib ne ko ñi ñëw jinne yi ak seytaane yi seen yitte mooy fexe ba nit ñi duñ xalaat suñu borom tabaaraka ko taala bu dul kon ak jinne yii nit ñëpp dañ ne jàkk ci màggug suñu borom gi tabaaraka wa taala ixtilaas da ko jëfandikoo ak lamma ak nadra mooy xool lu xaraam yonte bi daane loolu moom mooy fettam gi gën a gaaw moom iblis moom nga xam ne moom bu la ko jamee jeen ndax boo xoolee moomu too sa bopp da ngay dem ba sa kër la nga xooloon di dellusiwaat am na beneen ngànnaay boo xam rasulullah moo ko sallallahu alayhi wasallam mooy tashabbu mën a jël jëmmi waaju baax indil la ko nga mel ne danga nga koo gis ngaan ki ma gis sëñ diw fekk kooka iblis la moo tax yonte bi wax ne man bu ngeen ma gisee xam leen ni man mënta jël sama jëmm loolu riwaayaat yu baree bari riwaayab euh, imaam ahmad wax ne laa yatazaya bi wala laa yatazaya bi riwaayab buxaari yi wax ne laa yataxayalu bi riwaayab uh, muslim wax ne laa yatamathalu bi riwaayab ahmad waxaat ne laa yatashabbahu bi mooy mënta jël sama jëm buxaari nat na ne laa yatakawanu ni mooy mënta jël sama forme kon mën na laa indil jëm mu june waaye rasulullah moom mënu koo mënu koo si laa yataraa bi buxaari nat na ko xool mu itam muy muy gént itam da ci da ci da ci am na ci ngànnaay loo xam da ko jëfandikoo mooy gént bu bon bu ñaaw bu ñàng gu metti xamal ne iblis ci la bàyyi ko loolu la rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu dee gu baax nag ci suñu borom la bàyyi ko ba ci jàng alquran nga nayam la abdullah ibn amr ibn al-as dafa wax ne inna fil bahri shayatin masjunatan aw thaqaha sulayman alayhi salam yushiku an takhruja fa taqra ala an-nas qur'anan amna ñoo xam sulayman leen jengon ci bir ay jinne waaye buñ génnee danañ jàng alxuraan ju yees danañ ko jàngal nit ñi yeneen alxuraan yu bokkut ak jëfi nekkoon ak yeneen ixtiwaas lusum ak yeneen kon ma jeexal ko foofu léeg sax mu ñëw tuur ndox yonte bi nit biddanti na julliwut fajar ñu wax ko ko mu ne kooku de euh, seytaane daa tuur ndox ci nopp bi dafa dafa dem ma nag dalay wéq itam léeg mu wéq la innama hiya rakdatun min asheytaan ci xadisu Tirmisi léeg-léeg itam mu doonu till nga xam ne yonent bi daa wax ne seytaane mooy tillug doomu aadama léeg-léeg mu ñëw sa xol ci boom mu mu lump ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne inna seytaana waadiun xatmahu ala qab ala qalbi ibni aadama fa in dakara allaha taala xanasa wa in nasiya allaha iltaqama qalbahu da wax ne boo dee tudd yàlla moom daray daw waaye boo bàyyee tudd yàlla rek mu ñëw dégg nga lump sa sa xol bi bu dee njàpp da ko wutal moom seytaane boppam boo xam ne moom yitteem mooy jax-jaxale seytaane am na ñoo xam ne ndeysaan yàlla dina defal waswaas nga xam ne mën nañoo jàpp téeméeri yoon man xam naa jëmm joo xam ne yàlla ko natoo mën naa xëy tisbaar ba timis di jàpp ndax bu jàppee ba àggal sikk sàkk ne xanaa fàtte woon naa ki tàmbaliwaat yéen bañ ko waxee lu mel noonu dafa xam ne euh, njàpp euh, seytaane boobu yi mooy wëlhaan noonu la tudd julli itam du ko wutal moom seytaane dégg nga Euh, kii xin xin zib la tudd boo xam ni seetaani boom la Sëñ Tuubaa wax na nag yooyu yépp li ci musale ci ngànnaay yooyu mooy tudd yàlla subhaanahu amma silaaxuha alladi yasuulu bihi mutian fa huwa alxufuul càgg sàggan ci tudd yàlla mooy tax mu mën a jëfandikoo ci yow benn ngànnaay ci ngànnaay yooyu Sëñ Tuubaa itam kon ci ngànnaay sëñ bi Sëñ Tuubaa am na ngànnaay boobu yoo xam ni moom it moom la jàmmaatu iblis ba teg ko fi suuf la ca jiitu mooy daatullahi tabaraka wa taala astaghfirullah astaghfirullah kon bala ma agsi ci loolu ma ñëw ci ngànnaay yi nga xam ne iblis da ko jagleel sëñ bi yii mooy yi muy jëfandikoo ñëpp waaye am na yoo xam ne sëñ Tuubaa la ko jagleel te la ca jiitu mooy nasaraan yi nasaraan yi sëñ wax na ne li tax ma lay may jàmmaar la ñoom mooy iblis moo nekk ci seen ginnaaw zintu qasaida mujahidan lada man nasabu lillahi xumqan walada zaadahum alwaxidu fi daarini maa yurisu alaarini wannaarini zimaamuhum yaquuduhu iblisu moo ñoom saaru li iblis alxawi usaara iblis a leen téye xaruurul euh, wara xarran nasaara bi kaydihi maanaam iblis a leen wor di leen jëfloo ñoom nekkatuñ ci seen sago ñoom ñoom ñoom nasaraan yi moo tax li ñu def lépp seetaan leen ko defloo kon ngànnaay loolu sëñ bi wàlla ko jëmale beneen ngànnaay mooy léeg-léeg iblis ngemb genn nit benn nit jëfandikoo ko ci kaw sëñ bi sëñ Basiru xaakimu maa yomba mooy ka nekkoon sëñ bi ca maa yomba ku ñu xam la kookee sëñ Basiru dafa xam ne daalika seytaanul mutajassimu fii suuratil aadami seytaan la boo xam daa yor jëmmi nit moom moo nekkoon sëñ bi foofee buñ seetloo bi sëñ bi nekkee Mauritanie am na benn bu ñu wax naaji moo ñëwoon bëggoon a euh, jël bakkanub sëñ bi kooka itam ba mu agsee jébbulu sëñ bi da koo jox ñetti bayit nee ko dee ko jàng waxtu wu ne ila siwaaya durruka seytaani waa ji da amatum xel waaye bayit yi bu ko liiroon xam ne mënul ci sëñ bi dara ila siwaaya durruka seytaani maa lahuma alayya min sultaani allahu rabbi wa nabiyul mujtaba salla alayhi man hadahu wajtaba xilli wa xibbi wa aba madarrati waraama min rabbil wara masarrati bay yooyu la ko jox ne ko waxtu wu ne dee ko jàng sëñ mën la mi nee na waxtu wu ne waa ji da koy jàng waxtu wu ne mi ngi koy yëkkati nga xam du noppalu buy xéewlu daal la koy bàyyi wala bu bu dee ba nelaw yi léegi nag benn bis nag mu am guddi mu ñëw simmiku ba mel na ko ndeyam jure woon ñëw fekk sëñ bi fi mu ne mu jël jeesi yëkkati di xool sëñ mën la mi nee mi ngi xool fan la war a dóor sëñ bi fekk sëñ mët sëñ mët la mi nee na <clears throat> am na ku ñu wax Omar Fall Ndate si Omar Fall Ndate moo doon naafila ca biir jàkk ja moo gaaw dem xool bëkk néegu sëñ bu ñuy wax Cheikh Mouhamadou Lamine Niang ne ko am na ku romb fii wuti sëñ ñu gaaw dem fekk ko neen sëñ Mouhamadou Lamine Niang moom bi mu ñëwee dafa róoñu waa fekk waa ji nee na yëkkati na sax jësi ji waaye jës ji daal lonk ca ci ci buumi xayma bi mu nekk di ko laqar ci fa la ko sëñ bi fekk nee na looñu ko mel ne ku koy lekk rek lekk rek nee na mu yuuxu sëñ bi sëñ Lamin yuuxu nit ñëpp ñëw si itam yuuxu yi bari lool waaye sëñ bi ba mu déggee yëngu bi ci la leen wax ne bàyyi leen ko bu leen ko def dara daal di koy woo fekk am ñeneen ñoo xam ne sëñ bi waroon na leen yewwi mu woolu leen yewwi leen ne leen ànd leen ak kii ba ca post ba xam nga ci lay xam ne kon nasaraan yi ñoo ko ñoo ko yebalam kooku ku seytaan ngemoon la am na ngànnaay loo xam ne itam xëy na ñu bari mën nañ cee bañ a d'accord man muy wahabiya wahabiya ngànnaay loo xam ne iblis jëfandikoo nañ ko jëfandikoo nañ ko contre sëñ bi ci ginnaaw sëñ bi wahabiya du ñëpp bon am na ñu baax ñu la ñoo xam ne leen ca bàyyi mooy pas-pas ak bëgg dund sunna waaye ku seetlu xam na ne seytaane moom jëfandikoo na ci lu bari ñu bare bare buñ fàtte ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci xadis bi Buxaari net li moo wax ne اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا yàlla na yàlla barkeel saam sunu saam gi ak sunu yaman am ci saxaaba yi ne ko wa fii najdina mu delluwaat waa mu allahuma barik lana fi saamina wa fi yamanina yàlla na yàlla barkeel saam ak yaman am ku ne najd doo ko ci boole yonente bi baamuwaat ñaan gi te ñetteel ba yonente bi ne ko hunaka zalazilu wal fitan wa biha yatlu qarnu shaytan nag di fa la xarnu seytaan di feeñe xarnu seytaan yu bari ci borom xoom yi dañ ko firé woon musaylimatul kaddaab waaye ku mel ne zeyni daxlaan ak borom xoom yu mujj yëpp dañuy wax ne fitna yi musaylima fitna muhammad ibn abdul wahab moo ko gën a rëy te loolu am nay am nay nett yu bari yonte bi juñu ne ba tey ne haahuna ha inna al fitnata haahuna ci riwaayatu buxaari buxaari it na ci احاديث يو باري ها ان الفتنه ها هنا فتنه جي في لي جودو فتنه جي في لي جودو تي وهابي فوفو لا ديبار يونتي بي دانا واخني مثلا وهابي ديما كو واخه دوما تامي مانام دو نييب امنا نيو باخ ньо خامني يالا مان لينا ديمبالي وايي بو امنا امنا امنا نتوكاي نتوكاي بي موي يونتي بي دا واخني ان الغضب من الشيطان امنا ньо خاني فوني واخه nga am lo nakari ku ne deg na ko fan yi wax yi xew am na ñoo xam ni ci ñoom seen xol yi daa fees dell ak mer ñëpp dañ mere yow bu fekkee da nga julli fii ci jàkka ji yéefar nga ndax jàkka ji jàkka yi ay mutase boo yoree kurus yow yéefar nga takk nga maxtu yow yéefar nga def nii yow yéefar nga ah loo def rek yéefar nga ne yow an ñëpp sëriñ si yëpp ay yéefar la taalibe yi itam yéefar lañ ndax ñoom ñoo ngi ah, ànd yi itam yéefar lañ parce que ñoom ñëpp dañoo attewul lislaam man nga xam ne adduna si yëpp yëfal lañ ko dul man daal ak ñi ma àndal de xam nga loolu ci mer te yonte bi ne innal ghadaba min ash-shaytaan wax itam beneen xadis mooy yakunu baadi aimmatun laa yahtaduuna bi hudaay wala yastannuuna bi sunnati wa sa yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatini fi jusmaani insan noonu koy na mi riwaayatu muslim kon loolu it nga naay loo xam ne sëñ bi iblis jëfandikoo na ko contre ko yàqal ko lu bari itam ci biir mbooloo mi ginnaaw sëñ bi nag la ko jëfandikoo kon loolu mooy foofu laay yemale ngànnaay iblis yi mu jëfandikoo ci ñëpp ak yi mu jëfandikoo contre ma ñëw nag ci ngànnaay sëñ Tuubaa yi sëñ Tuubaa wax na loo fukk yaakaar na loo xam ne indi naa ko ci ay ngànnaay ba ci jëkk mooy daatullahi subhanahu wa taala jëmmi suñ borom neen laay dàqe iblis azuudu iblisa bi daatillahi ila siwa nahwi bi tardillahi jëmmi suñ borom laa koy dàqe nan la ko ci dàqee mooy wéeru ci moom iblis li feeg yaa wéru ci sun borom du man ci yow dara suñ tuba wax na ne wa an yuizani taala abadan min sharri iblis alladhi tamarrada fa najjina ya xaaliqa cheytaani min kaydihi wa salabi al-iman loolu wax na wax na ci lu bare bare di ñaan yàlla musal ko ci def na ko ba tay wax na sun borom ne ko man bi ka laada xaafahu shaytan kep ku wéru ci yow nongul la toroxlu fi sa kanam shaytan da koy ragal waaw أغننا عن التوجه إلى ما فيه شيء من الشيطان من عقائده وأقواله وأفعاله وأخلاقه واشغله بغيرنا بقنا جي غناي لي سين بي كونتر شيطان موي غناي لو هيلا لا واخنا نفاه عن قصد جناب الله قطعا بلا اله الا الله بات لا بو خامني داي داق شيطان نانا بقنا جي غناي يمي كونتر بقنا جي غناي سين بي موي بند سين بي واخنا ني مبنم ليپ داي اك لير وجال توا توالي في انوار تنور ان مبنم سين توبا ليرو كسرا ناخ دا فا جوغي تي ببوك ليرو سون بوروم يا لم تكتب الاقلام بالمداد في غير فضل الله ذي الامداد انا بوي بند ليرو معناي تي ببوك سون بوروم لا معناي داي روت تي خولم وجال فيو ذا كلكلي منير قلوب حزبك تي خولم لا لير روت maxnaa yooyu di sotti ci li muy bind moo tax mbind mi mooy li seytaan di gën a ragal moo tax da koy dàq nafat qasaidi laina walxiyat nee na ay xasidaam ak mbindam day dàq seytaane ida katabtu aw qaratu farra iblisu maa maa kulli shaqiyin qarra loolu wax na ci lu bare bare bare ngir wax na ne iblis du yem sama mbind da koy dàq waaye day daw daw yu metti haraba min shiariya iblisul marid du yam ci daw rek waye ñakara lu metti lay àndal idha katabtu aw qara'tu wajila titange khafal lainu min kitabati da koy booleeg joy yu metti itam buy daw walla lainu li siwaya baakiyan ndax samu mbind ne dafa am nakar wu ci ne ak metti ak maan dafa nakari ci mom dhaqa mararata kitabatiya fala yanxuniya yadah ak sëñ bi ag na ci wax ne samu mbind ni mi def ci iblis mi melne mel yawm badr yow badr al kubra la bam mu malaika malayka nam def daw lu mel nonu la ibli la la mi def ci iblis maddaliya al masuna masuna man ja'al xattiya mithla yawm badr fan ja'al sëñ bi wax nak ne bu may bind seytaane mom day daw tit waye rasul lay day bekk di muuñ ida katabtub tasamal muxtaaru kamaali iblisa bihi tataaru titaaru wax na ne mbindam moo raw kënu ci iblis waaw euh, kitaabati tubashiru musafaa wa inda iblisa tafuuqu midfaa moo raw kënu ci iblis kon loolu ngànnaay la am na leen ngànnaay loo xam ne sëñ bi wax na ko mooy pas-pasam ak xalaatam sëñ bi wax na ne haraba min aqdi wa min tafakkuri iblisu samay pas-pas ak def gi ma def sama xel ak sama yitte nekk ci yàlla loolu day dàq iblis xalaat itam yi may xalaat suñu borom samay xalaat day dàq iblis wax na ne mata qaratu aw amaltu fikari surtout la daa iblisa fawqa al askari su ma toogee di xalaat loolu moo raw ci iblis ab armée armée bi gën a rëy na mën a yàggee noonu na mën a faagagale ay mbooloo noonu lay faagagale iblis moom xalaat yi may xalaat yu xawwiful baaqil ali min fikari iblisa samay xalaat day tiital iblis waaw yafirru min tafakkuri ma allafid loolu wax na ci lu bari bari sëñ bi wax na itam nga naay li muy daq iblis mooy bokk na ci jàng alquran wax na ne ida talawtu ayatan farra benn aaya rek mu ko jàngee mu daw ndax iblis ñimiwul alquran qiraaya ayu kitaabin laysa yaqrubuhu iblis wala sëñ bi na ci nga naay yi muy dàq iblis itam di ko ko xeexee mooy tag yonente bi ak julli ci mom loolu wax na ci lu bare bare li madhihi farra la sarmada buma tambalé tag rasul la rek mu daw alayhi salatu wassalam wax na itam ne wa tahmi janabi alayhi salatu minhu takfini niyal ada wa tahmi janabi an la'in wa man ami salaatu an nabi bu moko defé day daw bokk na ci nganaay li nga xamné itam kon ngana yu bare bare da moy dëkk gi mu dëkkaaleeg sun borom xelam yep ak khalatam ak yitteem jëm ci suñu borom loolu day dàq iblis ndax iblis leeru bu yonente bi la ragal mooy suñu tubaab wax ne chaqa ala seytaani kawnul muntaqa xayral wara loolu nag ngannaay yooyu nag moo tax yàlla musul ko ci seytaane ahadanil baqi min asheytaani waaye seytaane ji nag mën nañu jàpp mooy seytaane si ko iblis bokk booleel nga xam ne ku ne seytaane si ngay àndal ndax sëñ bi wax na ne yàlla fegal na ma ko rawatina bi dem ci bi muy dem ci géej gi téere ba mu ca def jazaa'u shakuril atuuf الذي كفاني كل جبار عنيد وشيطان مريد seytaane سوسي nga xamne yàlla ar nako ci dafa mujj sëñ bi wax ne dama ko teur rendi moy setan ci may bima iblis bo woon dama ko teur rendi mo wax na ne ci qita bi wuduhu iba shaytan durri maxaafan qita qita bobu ñax ñent beyd la wala juróom ñent lu beydo bako ko sëñ bi sharfo mi ngi ci majmuwa bi yaakaar na dafa wax ne wal baytu rabiu fihi taalimun bi anna allaha qatala sheytaana qaili hadihi alqasida xata saara kullu sheytaanin xaayifin xaayifan minhu maanaam sheytaane si nga xam ne moom lañ ko boole doon muy qarin bi nu qayidaw sheytaan foofu wala qarin qarin boobu sëñ bi nee na yàlla dama ko ko dama ko reyal faatal ma ko am na bayit woo xam ne sax dafa wax ne waxad xaaba sheytaani taridan wa madbuha mooy dañ ko dabxu rendi la la ko def loolu it nag bokk na ci li merlo iblis mom li tax iblis ñëw fété wo mbirum sëñ bi ak di jamar nak mom na lolu loolu bokk na ci ndax sëñ bi da wax ne shaqqa ala seytaani kawni qahiran junudahu not gi mo not soldaram yi ma bolé lon ba ben shaytan ñemeetu ma itam ñemewut ta ñëw nek ak man loolu yi metti na lool ci iblis amna na yenn ti mbir yoo xam sëñ bi wax ne mom la iblis ragal ci mom moy nek gi nek di jaamu yàlla abdullahi wa khadim rasul rasuli mom yàlla ko tudde abdullahi wa khadim rasuli yi yasuu kawni ya abdallahi jalla xadiman li rasulillahi sëñ bi daana wax ne bëgg gi ma suñ borom bëgg ma di ab soppeem loolu lu naqari iblis la moo tax sama mbëg neexul iblis loolu nag moo indi xeex bu metti bi nga xam ne moo dox diggante iblis ak sëriñ bi ci rawatina bi muy dem ci géej ndax iblis lam def mooy da koo fexel ci ay pexe jaare ko ci nasaraan yi ak tubaab yi bañ génne sëriñ bi yóbbu ko ci géej gi itam sëñ bi wax na ne falaa xeex ak moom qaataltu fi lbahri qaataltu fi lbahri shaytaanan wa kabkabahu xayrul wara xayrul wara mujtaba fi sahbihi tabanu ca jeewal itam wax na ne foofe la ko sun borom la sun borom nagulo iblis xamal ko ne ko ki do man ci mom dara ayyasa minni llahu inda jeewali iblisa is naadaytuhu bi ya wali ci ma yomba itam neena ban fa àggee fofé mom lamugo sun borom dakale mom xane mom da daw mom li rabbin gafurin qad maha anni yadamba wa anni nafa iblisa fi bahri ma yomba motax dara wax ne bokk na ci sekkaray tukki bi moy ayyasa iblisa wa kullu lainin maahu minni naagu loon na iblis moom suñu borom ak bépp seytaane nga xam ne mënuñ ci man dara waaye loolu taxul iblis teg ay ay ngànnaayam de ca Muritani ndax bi sëñ bi ñëwee juróomi benn weer la fi def iblis defi pexe say euh, jaar ci nasaraan yi ngem ngemm leen bañ génnewaat ku ne xam na loole duñ ci jaar bi mu del dellusiwaatee ci réew mi itam ba nekk jolof ca Ceyeen iblis dafa feeñ ñëwal boppam boo demee ci jawaamiul kalim muy téere bàyyi sëriñ silla bi te sëñ Abo Kebe ngul ko tudde ko jawaamiul kalim wax na ca ne ca Muritani bàyyi sëriñ nee na fekke nañ bis boo xam ne sëñ bi daa julli suba ca Daaru Rahman këram googee daal di wax ne mbooleem jàngkat ñi jàng kaamil waa daara kaamil yi nañ ma fekk fële ci Daaru Xuddoos ñëpp ñëw bañ ñëwee nee na mu mu ne ndax ñëpp ñëw na ñëpp biñ ñëwee mun leen tëj leen buntum ñu tëj bunt kër gi mu ne leen kenn ku ne na jàng lim sàngam ci kaamil gaa yi nekk ci kaamil yi di jàng di jàng bañ ko àggalee mu indi suukar ak ataay jox leen ne leen defar leen ngeen xewul nee na ba ah, warga wi nag ci la jekkee ki benn waay ñëw fëgg bunt bi nee na ñu xool ci miir bi seen ko muy waajoo xam daal lu ne takk na ko ñàng bari bagas nee am ku dem laaj ko yow luy sa mu ne ko yow de taxumaa jóg sëñ bi ci moom laa bëgg gis waaja nee na ba ma ko gisee ci laa xam ne kii du nit ku baax moom moo tax ma bëgg seet lu ma ko fexee ba wëlbati ko ba mu dem te bañ a gis sëñ bi mu ne ma taxumaa sëñ bi laa bëgg a gis ne ña koy jàppante ba mujj sëñ bi génn ne loolu lu mu doon ba mu génnee ñu ne ko daa am jëmm de ju fi ñëw nee na bi ñëwee ba janloo moom sëñ bi neena même bi sëñ bi ñëwee ba jël ba janloo moom da ko ne jàkk xool diir bu yàgg ne ko jàkk waa ji ne tekk sëñ bi di ko di ko xool di ko xool ba mujj sëñ bi ne wëriñ wan leen ginnaaw ne leen nag fexe leen ba génne ko fii te bu leen ko laal bañ demee ba ñëw leeral ko ne ko génne nañ ko mu ne leen daaka aduwullahi iblis kooku mooy noonu yàlla iblis ci boppam tey daa ñëwal boppam mbir mu rëyit moo ko it moo ko yëkkati woon fa law wajada ala ardi xayri la ata bi mafsadatin azima tey jii de bu mu fekkutoon dana fi yàq ci kaw suuf yàq boo xam ne dana rëy lool dana rëy lool waaye nag yàlla dàqal nañu ko Sëñ Tuubaa nag ngeen seetlu du wax ne man maa def day wax ne yàllaa ko dàqal yàllaa nu ko dàqal même seytaane sa day yàllaa ma ko reyal ngeen ko xamee benn bis wax nañ ne iblis ñëw na am melaw kenn ci rakki sëñ bi damay bañ a tudd tur bi ndax net li bi waaye sëñ Alaaji Mbàkke moo ko nettali ci nettaleem yooyu wax ne wér na moom léeg-léeg mu wax wér na lool mooy yi ci gën a wér am yoo xam ne wax wér na kese am yu wax siiw na am yu wax wër na ñeenti nettali lay wax bii nag wër na la ci wax dafa wax ne bi mu ñëwee Iblis sol ay dàllam ak mbaxanaam ñëw fi sëñ bi amee melow kenn ci rakki sëñ bi ku ñu xam ci kilifa yi ne saam maaleykum sëñ bi ne waaw kii gën a nuroog diw waaye man de dal dal yem a jaaxal dal yi mu sol xam nga ñoom dawuñ sol ay dal ci kat ci kësëñ ne ko waaye jàll si rek nee na waa ji ne weqat daw moom iblis sëñ bi ne leen kooku iblis la moo ñëw bi sëñ bi jógee jolof itam ñëw njaareem xam ngeen ne iblis taxul mu bàyyi iblis moom du naagu moom Feksi ci weru na wo woo xam yépp xam nañ ko iblis dafa dem ba ñaar fukki fan ak juroom ñent ci weru baraxlu mu feñ feñ wo xam ne ñëpp japp jàpp ne lii weer wee keroog waa njéeréem rek xëy ñoo ñoo woru señ bi ak ak ak wa waa man cheikh abdou xulos amna kuma net li cheikh abdou net li ko ne ko fa la ko fek señ bi wax ne ku gis wi na dem sër muji te xam ne weru weeru la kérok bi mu ñëwee la fek ci dëkk bi la fek borom daal borom daal ne ko nun nu fa señ ba te gis nañu wer sëñ bi ginaaw dafa wax waa dëkk ba ne leen ne ngeen sëlmu mujj ñoom la ñoom ñoom la ko wax te nun xamee wuñ <laughs> wéru seytaan ak wéru weneen kon iblis bayiwut sëñ bi ci alsasin mooy 1331 euh, alsasin mooy bañ demee njaareem ba ca déwén sa sëñ bi ca euh, diggu diggu tabaski wa tolloog 1914 sëñ bi wax na ca ne guddi gii de am na guddi goo xam ne bisu alxames la guddi alxames la bisu alxames boo xam ne sëñ bi daa ne guddi alxames gii de iblis ñëw na jànkonteeg man jànkonte bu méttee méttee méttee méttee méttee waaye nag daan naa ko bëri na ma ak moom ba daan ko loolu mi ngi ci majmoo bi am na geneen guddi goo xam ne sëñ bi daa wax daa yeex a julli si wax ne la ko ko teg itam iblis la ak jànkonte gum doon jànkonte moom ci njéeréem it ca la wax xaatimatu mukaabarati iblis guddi goo xam ne wax ne ci laa mujj jànkoonteeg moom wantabihu ala anna laylata alxamisi xaatimatu mukaabarati iblis wa kaabadani fii tilka laylati mukaabadatan lam yukaabid biha ahada ne guddi gii de xeex na maag moom bëreeg moom jàppante boo xam ne iblis moom lim ci wane mosu ko wan kenn moom waaye sëñ bi yooyu yëpp yàlla koy jàppale ndax ci yàlla la làqu moo tax mu daaneel iblis sëñ bi wax ne daane naa mabbu naa mboole lu mu fi tabaxoon hadamtu maa kaana laayinu baaniya yëmul ci loolu soril naa ko dàq naa ko fi ne ñimetu fee jege wa zaxzaxtu laayin ñimetuma jublu si ma xawta an yaqsida seytaanu fi abadin ila jihatiya du jublu mukk du moom du ko laal ci moom dajjaal sax bu ñëwoon lam yadxuni seytaan seytaanu wa dajjaalu xeeti seytaan yépp it ñoo ma ragal fine mooy mooy lam yanxuni seytaanu jinnin aw bachar loolu wax na ci lu bëree bëree bëri awadani min kulli seytaani wa ma waala shayatina lépp lu ànd ak seytaane sax ak donte bokkoo ci ñoom sax fi ne ñemee tooma ñoom ñëpp ña ngay daw wuti feneen ila siwa naxwi naxal xannaasu ndax suñ borom moo ma ko sànnil ay njum yoo xam ni tax na fi ne ñemeetuma jege fu ma jege rek njum yi dal ci moom rajama iblisa rajima allahu wa anhu saananiya niamallahu moo tax mu daw ànd ak mboolem lu amoon sëñ bi sax misaal na ni mu doon dawee ne baa al la aynu yaa isan ka xirdi lu mel ne golo di lu ko ñuubar ñuubar yëpp wéy boole ko jooy yu metti nag wala la aynu li siwaaya baakiyan tiit loolu itam sëñ bi àgg na ci wax ne mi ngi ci majmaa bi wax ne ki sababoon ñu génne ma yàlla teg na ko loo xam ni iblis daa mujj moom tiit ci man tiit goo xam ne daa mujj ragal waa ji yi moom waa sababoon tukki bi motax neena nee na foko gis da fay jàq wa in lam yanhun yanxunil yowma lain bal harab bil tifaatin li wa innahu huk tarab rëccu lol itam xaabal lainu ba yan bin nadam waxna ci lu bare bare waxna ne fi ne mënatumaa jege mu ne amin yati shaytan sama lépp mënatu ci mënatu ci aksi agna se wax ci wax ne iblis fi ne àgg na ci mënatumaa gis انه يراكم هو وقبيله اغنى na ci mënatumaa gis xajabanillahu an cheytaani yàlla doxale baara sama diggante moom maa gis jataay bu ma nee du fa ñëw lu bokk ci moom it du fa ñëw daana wax ne sama jataay ku ciy ñëw seytaane si ànd ak yow ca biti la lay xaar soo ñëwee fi man li nga fi jëlee boo ko sàmmee duut la topp mu boo ko sëmmul nag boo génn rek mu mu del si waat ndax jataayub Sëriñ Tuubaa jataayub tudd yàlla la dana wax ne majlisuna hada majlisul malikil quddus la majlisul addu bi iblis loolu la daa wax këram nee na itam waxuma la sama jotaay waaye kër gi ma ne sax ñi mu faa jaar fi ne wahabali fii binaayi an la yadxulahu seytaan wala aduwun ila nqidaa dunya ba keroog adduna jeex na mi ngoog kon loolu wax na ci lu bare bare bare waaye nag sëñ bi mësta naa ko sëñ Basiir wax na ne bu masaatoog ñu koy siyaara day jékki-jékki rek ne jéggal leen ma ma dellu ca yàlla ak yonente bi alayhi salaatu wa salaam bala ngeen a dox sama digganteeg moom nee na noonu buñ ko bàyyiwut nag day jege rek ne wërëñ ne leen ku mën a xaar nga xaar man nag maa ngi dellu ci suñu borom buy dem nag ñu dégg muy wax audu billahi min asheytaani rajim ndax day xam ne loolu ci pexe seytaane la ko boole woon jata yooyu